les populations défendre leen du côté de l'État parce qu'il est également conseiller du président de la République Momar Ndao pour ne pas le citer euh, tey peut-être question yi nii yëpp il doit être interpellé seen rapport ak moom la la parce que apparemment seen association bi ak ASCOSEN bokkul mm-hmm. est-ce que da ngeen gis ne peut-être taxawaay bi moo doon taxaw taxawu ko moo tax ngeen ngeen ngeen seen activité bopp wala yaakaaru leen woon peut-être bu ngeen fusionné woon euh, en tout cas conjuguer effort yi mhm. peut-être le combat aurait pu mieux être pris en charge voilà merci ci question bi mu posé d'abord Mama Ndaw il faut lui rendre un vibrant hommage mhm. mooy pionnier consumérisme Sénégal su mu xamee la mooy consumérisme Mama Ndaw mhm. mais gars yi nee nañ liggéeyul liggéeyul de d'accord waaye ñu bëri dañ fi toog di ko critiquer on lui a confié moom ak beneen lëb un professeur la CONAREL c' est la commission nationale de régulation du loyer. bi ñu defee concertation bi par décret. mais CONAREL boobu actuellement ma wax la loolu devant benn émission bu dugg ci benn subvention benn fonds li ñu arrêté woon y' a pas d' honoraire pas de siège y' pas de subvention dara amul c' est une coquille vide comment ces gens là peuvent travailler comment ils peuvent ñun ñu ngi nekk en contact ak ñoom bon la CONAREL. peut être ouverte à notre association parce que ci soo xoolee décret bi leen ñu wax CONAREN bi ñu defee structuration bi dañ ni wax ni am na ñoo xam ne ay personnes ressources lañu moom en personne xam na ni man personne ressource la capacité wu naa ci location xam naa ci dara ba ci mbiru yoon lu ci bëri xam naa ko démb rek moo ci mujj locataire yi dañuy am problème di ma woo ma leen di wax fi nu war a jaar pour jaar fa kenn bañ de bañ naxasaay seen seen ak ak yelleef donc moom dinañu boole nee na su commission commencé liggéey il est possible et fort bien possible que. ñu kon commission bi commencé guñ liggéey boobu ba léegi. ñu ngi tege Serigne Koki vide. ah c'est a rien là-bas. mais léegi ñoom xam nga loolu foofu loolu mooy sama problème. Serigne Koki vide mm. à dire que man duñ ma confier dara. mu nekk Koki vide ma toog rek. Mm. depuis mm. lors. ñu foofu toog mais le Sénégal yow tey boo ñëwuloon toog ne commencé wu ñu liggéey le Sénégalais vont penser. que kii non mais mais attention c'est-à-dire que commencé guñ liggéey aussi. Euh, mënu ma koo wax c'est-à-dire que moyens yi leen waroon a jox. mais ñoom mais ñoom non ñoom ñoom attends wax na même nombre de nombre de requêtes yi mu jot. Hmm. nombre de plaintes yi mu jot bi nu ko joxee def nañ ci ay tànk ko moom émission boobu dafa dugg mooma ndaw am na même ay nopp qui n'obtempèrent pas ni ñoom wàññee ak dee la ñu yemale mais il a yi même qu'on saisisse le procureur ba nar leen a jaarale ci yoon ba ñooñu accepté wàññi yooyu exemple joxe na ko am na liggéey yu ni def quoi. mais li ñu waroon a def mooy maanaam tey aujourd'hui kon mais yooyu c'est des cas isolés. isolés d'accord c'est des cas isolés boo xam ne dafay am pertinence mooy boo xam ne dañ koy mëne ba ñu voté à l'Assemblée nationale nga xam ne bépp euh, bailleur da nga ciy tënk. Mm. ñu régler yenn problème yi donc ces cas de de d'effondrement wala yenn en tout cas manquement yoo xam ne dañ koy gis te muy am njeexital bu métti ci ci ci locataires yi s'il y avait la bonne posture par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la ñu confier pour ñu lii loolu est-ce que on a on on en serait là. voilà d'accord gis nga la CONAREL comme l'indique son commission nationale de régulation du loyer. Hmm. cest à il faut ñu rappeler. en 2014 lan créé benn loi ni dañuy wàññi location génne pour pourcentage foofu lan juumee loi bi daal di am ay ay gàllankoor daal di lajj man interview nañ j'ai bien étudié la loi ça n'a pas réglé le problème ñu génnewaat le décret. boo compté da koo empiré. da koo ñu génnewaat décret décret bi euh, premier mars 2023 bi la entrée en vigueur. bi ñu ko génnee on a également ça n'a réglé aucun problème parce que fi ñu waroon a jaar lan jaaru xam nga fu ñu waroon jaar le problème du loyer pour régler ça man après laa xam ni Ibader loolu la proposé woon il faut par zonage. il faut créer zone. Mm. fixer les prix suivant les zones. soo ko deful tant que defoo régler problème ils n'ont qu'à réfléchir. au oui cette commission doit réfléchir doit réfléchir autour de ça concertation yi quelques jours benn jour la am ko ñu gaaw ko benn jour tu pas régler la question du loyer tu pas régler la question du loyer te jëloo toutes les entités qui intéressent cette question nga impliqué leen ci réflexion.